léeg-léeg masalan nga gis Sénégal benn événement xew masalan léeg-léeg su fi ne sax ñu ngi naan réew mi neexul ba ñu bari fi mu ne ñu ngi jël gaal yi di tukki di dem ci yeneen réew pour mën a wuti foofu dara tukki lu baax la de pour wuti xam-xam wala pour pour wuti wërsëg waaye lislaam daf lay jàngal sa bakken wi nga di ko sàmm te bu ko teg ci yoon woo xam ni wóor na leen ni sag maanaam sag dee xaj na ci wut xaalis rek loolu lislaam da ko tere mbokk yi léeg-léeg nag ñi ko téewari di ko raay ra loolu moo am lislaam dafa tere nit muy wuti xaalis ci façon woo xam ni wóor na ko ni maanaam dee lay gën a jege du foog mu leer loolu mën na nag jaar ci yoon woo xam ni day dem yoon bu légal kooku dara nekk beneen bi it bu amee gëm yàlla gu dogu mais bu fekkoon ne day xëy di am juróomi dërëm ci réew mi wala fukki dërëm dina dina dina bàyyi xel loola te sax ci tey bàyyi xel lu yàlla dogal ci namm ci moom li yàlla namm ci moom lan la na sax ci loolu te dogu ci dëgg la réew mi jafe na fi mu ne metti na ndax Sénégal mooy réew mi gën a dund ci Afrique fi mu ne li rapport yi joxe semaine bi passé xuma semaine bi ci génn loolu moom ñëpp a ngi koy yëg léeg ñaan la guerre nangam ak nangam ak nangam du dara mooy ni ñu réew moo baaxul rek kese la amul ni jàppuñu ci dara faw benn ñuy sàmmoonteeg li nga xamante ni moom la yàlla santaane pour nit ni muy sàmme kenam ay liggéey dégg nga bañ a xeeb dara nay bañ a xeeb dara ki xam dafa am xam-xam li mu jàng na ko exploité na def ay effort bu mu ne pare naa rek aw mooy liggéey kenn jëlu ma rek ma dem toogi di naan attaya ak topp ay gars yoo xam ne dañuy xëy di ngemb dégg nga di fecc di dóorante daanaka sportu sauvage la presque ñu ne loolu aadala loolu du diine làmb dafa xaram dafay delloo réew ginnaaw dafay delloo société ginnaaw tax ndaw ñi du ñu am repère ñu am royukaay ndaw bu fekkee ne day xëy topp benn nit boo xam ne day gemb benn ñaar fi muy ne dina fa faat lu mu gàtt gàtt ñetti waxtu julli ñette bi li def la ci ëpp ay xërëm la ay ay sihr ay njabar la ci xërëmante kenn ku ci ne bo mané jekku sa morom ba mu febar febar bo xamni mën na caa ñàkk bakkanam sax di nga ko def pour gagner ko li wut lan la ben 100 millions la bu ko amé ci mom la yam am njabotam mom mo ci gagner ak kan ñakoy organiser muy CNG bi ak kan xeyna na yi génn ci stade ba ñu defaraat ci ay siège amul leneen. yaay dem jënd ticket bi 5000 wala 10000 passé fa temps bo xam di nga fa yàq ñetti waxtu yoo xam ni waxtu doo ko julli waxtu booba génn di nga xeex xeex bu métti ñaare amaana sax booy génn dañ lay agressé nangu sa alal mbokk yi loolu lu ko jar ci àdduna lu mat la ñi di ko ñi di ci yee nit ñi ñu xam ni dëgg la koor am na waaye ci yoon wu dagal beneen bi dafa xaram waaye ñi di ko def ci cadre insaniya maanaam humanitaire maanaam làmb du affaire u humanisme ndax tee nit di ko dóor ba mën naa dee ci say loxo loolu bu yëfi loolu même bu dul diine sax lu lu dul diine sax ñi nga xam ne dañuy dox ci cadre doomu aadama sax loolu nangu ko rawatina nag l'islam ñëwati encore ay catastrophe la gone xëy màgg gis ñooñu ñuy fecc di dégg di bërti bërti te ñu ah ñuy teg ñooñu bët di leen roy bëgg di leen roy du leen sopp bëgg leen mais tamit bu fekkee ne ci loolu la ñuy dund situation yooyu réew moomu des fi am yaakaar saa bu xewee da ngay defee ni Sénégal amul mag da ngay defee ni ñëpp ay xale lañ ndax yëpp kawar yu ñuul kuk la ñuy yore nag nañu góorgóorlu suñu bopp bu baax a baax boo fi jigéen ñenn ñi ñu ci ligue des champions yi championnat France Angleterre Espagne topp programme yi rek saison bi jeex na ñu ngi ci mercato ñii ñooy ñëwaat waa bi am na ñoo xam ne xamuñ ne Sénégal am ay milliards lañ ciy fayeeku buñ paree dem créer seen entreprise Sadio Mané keneen a ci yem ku ci ne sa bopp ngay liggéeyal foog nit ñi xam lan moo leen war seen digganteeg seen borom santaala ak lan moo leen war ñoom ci lan lañ war a def ci seen réew li leen di xaar loolu lu am solo la noonu la l'islam préparé ndaw ndaw ndawu lislaam ndawu jullit moom fayda dégg nga yu ñàkk fayda yi du ko këf bu xewoon ba nit ñëpp teg ci seen bët moom it yoonam nekku am nay farataam am na lu ko war ne xëy bis bu ne yor programme am yor barnaamijam di dox ci loola maytu lu xaram maytu lu baaxul maytu loo xam ne dafay tardeel nit maytu loo xam ne day yàq temps nawetaan ci juróom benn ñeenti weer fi mu ne école yi ubbi na bu yàgg yooyu yëpp ay ay jafe-jafe la yooyu nañ ci góorgóorlu bu baax ndaw ñi daal ñu xam ni bu ñu bëggee dem faw ñu am fayda faw ñu xam li leen war d'abord te dox ci li nga xamante ni moom moo leen amal njariñ te nangoo jàng te maytu taxawaalu te maytu poggu bari gi poggu bari dafay tardeel nit yooyu daal bu ñu ci góorgóorloo bu baax incha allah yàlla mën nañu dimbali ci lu bare bare bare bare bare bu mën a defar waaye boo nekkul sa réew nekkee sa réew yow nga ne doo bale wo boo xam ne dañ lay jël liggéey boo xam liggéey surga la ba noppi gisub gaal ne da nga koy jël dugg ci pour dem Espagne wala États-Unis boo dem foofu loo liggéey boo liggéeyul fii liggéeyu xam-xam est-ce que mën ngaa liggéey foofu liggéeyu xam-xam liggéey doole nga mën a liggéey foofu la yàlla jox rek nga téye ci loolu insha allahu taala bu ñu ko defee yàlla mën naa dimbali ñu bari ñu a defaru yàlla nañu ko yàlla defal ginnaaw loolu lépp nag ki nga xamante ne mooy ndey ji mooy état bi nga xam ne moom moo yilif ñëpp ndax yi am yi yëpp fekkee ne nit ñi war le war a nekk ci seeni nekkuwaay bàyyi xel seeni nekkuwaay bàyyi xel seenu dund bàyyi xel seenu xëy kon jafe-jafe yi yëpp du ñu ci yegg waaye réew mi dafa bëri politique ba nga xam ne lépp lu ñuy wax la ca ëpp wala lu ñu action yi ñuy def ya ca ëpp kenn ku ci ne da ngay seet ña la arrangé ak ña la mën a sànni carte ak ñi nga xamante ni boo leen defee leen nangam après ñoom daañ la mën a nekkal foofu man laa wutal ay nit te ñooñu ngay préféré jëm fa ku ci ne ku ci ne barabu liggéeykaay ba ba nga dugg ñi ci ëpp sa nit la fa ko jàngul sax ñi fexe ba nga dugg fa rek pour garder la bu élection ñëwee ñu mën laa boteel yooyu moo tardé réew mi moo tax ñi nga xam ni ñu ngi jàpp ñu ci dara gën di dee ñi nga xam ne ñuy jàng ay diplôme dugal ko ci yi amuñu lu ñu liggéey parce que fu ñu dem dañ leen rejeté am na ñeneen ñu ñu jël ñoo xamante ni amuñu capacité loola virus la boo xam ni bu continuer réew ma day dem ba daanaka ñi nga xam ni ñooy boroomi xam-xam kenn du leen xam maanaam ñiy jiite réew mi du ñu xam dara du ñu am compétence bi du ñu am xam-xam bi du ñu am maturité bi loola musiba la yanuñ ci yàlla musal bu defee yal yàlla ñu sàmm réew mi te sàmm suñuy liimaan te dolli ñu dëgër ak kattan te tàggat ndaw ñi ba ñu xam ni yàlla rek moo fi nekk dëgg la lislaam dafay ñëw la ñaari problème mu doomu aadama mooy problème mu poids ruuxam waaye ak problème mu jëmmam ñaar yëpp la boole lislaam ñëwul pour rek ñuy jun ñuy julli di woor di lekk suuf du pour loola lislaam dafay ñëw pour ñuy julli di woor di jaamu yàlla waaye di dund dund googu nag dafay yaatu dund dund defar say say sa nekkin waaye defar nekkinu nit ñi dafay ñëw pour régler problème société kon yooya bu ñu ko gëstoo rek dinañ xam ni diine ji diine ju yaatu la diine la joo xamante ni mbooleem li ñuy wut di ko wuti feneen yépp bu ñu ko gëstoo ci suñu téere bi di alquran lépp lu ñu telee dinañ dinañ ko man lépp bépp yoon boo xam ni gisuñu ko dinañ xam wan fan la fan la ñuy jaar